une chaîne de télévision culturelle et religieuse Rafah TV ñëppay dañ agréer قلبك yaa asalaamaaleykum téléspectateur u Rafah TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo siyaar leen amati nañ mbekk ak bànneex tey nag ñu ngi fii ci Daaru Karim ci kër Serigne Saliou Mbacké mu Serigne Modou Faty Khary di fi dundal laylatul xaddar muy fukki fan yi nga xam ne moo mujj ci weeru koor ñu ngi toog ak kenn koo xam ne mbokk la ci Serigne bi di wëllëreem di wuyoo ci turu Serigne Massamba Mbacké bala ñuy sori ci biir waxtaan yi dañ koy bàyyi mu nuyoo ak mbokk yi dikkal ñu ci njariñu laylatul xaddar ak lan moo fi dajale askan bi tey sëriñ bi bisimilah. maa ngi nuyu nuyu mbokk yëpp di siyaar ñëpp ci yéen ñi nga xamante ni yéen fi teew mooy Rafah TV ak Istikhama point com xam ne waxtu wu ne ñu ngi eh, seetaan seeni émission di ci am mbégte lool ci lépp aw yoon tey na ngeen ñu fekk ñu fii ci eh, kër Serigne yu Mbacke moom Serigne Modou Faty Khary xam ne lii ñu fi def tey ay ati at la ñu koy dee waxtu ne bis bi nag ñaari bis ñaari anam dañ cee yëkkati bi njëkk mooy leetul xadar bi ci des mooy jëmmi Sëriñ Saaliw day leetul xadar li suñ borom wax doy la sëkk xam ne bañ na ko ba aw saar la ci wàcc mu ne innaa anzalnaahu fii laylatil qadri wa maa adraaka maa laylatul qadri laylatul qadri xayrun min alfi shahrin génn guddi gu gën junni weer nag fu mu fekk doomu aadama war nga ko dundal rawatee nag ñoo xamante dañ ci am jagleel kilifa muy suñ Moodu Xari xam ne da daan moo ko daan woote ci ndigalul suñ Masamba ñoom ñu wuutu ko ca loola di ko ci dundal ñu ànd kook ñoom ci loolu ginnaaw lool nag ñépp xam nañ li njëriñu laytul xadar ñu wax ci jëmmi Sëriñ Saaliw mi nga xamante ni moo ñu fi yëkkati muy nit ku baax ku bëgg mbokk ku am diine ku bëgg alxuraan nga xam ne benn bu ci nekk rek jar na nit bàyyi ko fa mu nekk ñëw wuy si ko jëmm joo xamante ni nii mu mel rek noonu la mos a mel naka jekk du sopp ko ci genn wàll doomu aadama moo ko gënal boppam rawatee nag ay mbokkam moo tax bi ngeen ñëwee fekk ngeen fi mbokk yu bari fi mu toll nii it sëñ Abdou Khadir max ma Mahamadan moo fi jóge léegi suñ Sohayb bi moom suñ max sëñ daan a ngi nii suñu ooyu su Mbàkke moom suñu Moustapha Massamba suñu Seexuna moom suñu Moustapha Massamba ak suñu Mamoor suñu Mahmouda ak suñu Abdou Khadir moom suñu Mamoor ak suñ xaadi moom suñu Moustapha Abdou Aziz loolu day teg tegtali ne kenn ku ci nekk lam séq yow moo tax nga bàyyi la nga nekk fekk si ko ci bis bi ñu ci am mbégte bu baax a baax nag eh, eh, ndax mbokk yëpp baax nañ lool bëgg nañ lu baax lool sax nañ ci lu baax waaye nag moom ak jagle la ci am jagle googu nag ñu ngi ñaan suñu boroom kàttanal ko te wéral ko te tawféexal ko ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal euh, bàyyi bi suñu mot faati xëri ak maamam yu baax yi ak alxuraan suñu boroom defal ko ko ba defal ko lu kawe njortam te mu ànd ko wér ak kàttan ak xéewal bañ fekk ko ñun ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah di sant delloo santaat bu baax yéen Rafah TV ak Istikhama bu baax a baax ndax seen euh, waar ci lislaam ñëpp xam nañ ko ñu ngi leen di topp waxtu bu nekk di seetaan seeni émission di ko déglu di ko bàyyi xel bu baax yàlla neen suñu borom gën a taxaw te gën leen a dimbale ba mu doon ay tele yu mag suñu boroom man na ko yàlla na ko def wasalaamaaleykum wa rahmatullah ba tey mbokk yi ñu leen ko waxee woon suñu ndoorte Laylatul Qadr la ñuy dundal fii ci kër Serigne Saliou Massamba ñu ngi toog ak keneen koo xam ne wëllëre la ci sëriñ bi di nuyoo ci moom la jox kàddu gi mu daal di nuyoo euh, xamaleel ñu leen mooy Laylatul Qadr li nga xam ne moo fi dajale taalibe bi ak digganteem ak ki nga xam ne moo ñu fi dajale tey muy Serigne Saliou Mbacké Serigne bi bismillah. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu euh, ñu ngi. nuyu ñëpp di la nuyu yow mi nga xam ne yaa yaay yaay yaa yor mbir mi waaye di nuyu ñi nga xam ne mooy waa Rafah TV ak Istikhama ci taxawaay yi ngeen xam ne moom ngeen am muy taxawaayu rafet yoo xam ne fépp foo xam ne ak mbaax ma nga fa te nëbbu woon rek yéen génne ngeen ko indi ko fu valeur ne woon doon nëbbatu bis euh, Rafah Rafah yi ci boppam. Euh, loolu nga xam ne mooy slogan moom mooy ñëpp ay dañu réer loolu feeñal na ko ci bisub tey bi ndax bis bu màgg bu toll nii. képp koo xam ne yaa ngi koy génne di génne baax baax yaa ngi njëriñe ne ca biir rek ngir nit ñi jëriñu ci xam ko kooku yaa ngi liggéeyal yàlla kon yàlla yàlla samp seen taxawaay gën leen a yëkkati ba turu rafaa bi may leen ak rafaa goo xam ne moom dootul wàcce mukk bis bi nag doon bis bu màgg di bisub laylatul xadri ci biir koor gi di ñaar fukki fan yi juróom-ñaar yàlla dogal ñu seet si sunu mbokk sunu mbokkum taalibe sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Saalihu Mbàkke mu sëñ Modou Fati xarit ñu doon mu doon suñu wóllëre ak suñu xarit ak suñu mbokk bu yàgg ñu doon ànd bu yàgg boo xam ne ah, wax dëgg yàlla bi ñu ko xamee ba fii ñuy wax ak yéen ak mbaax lañ xam ci moom ak bëgg nit lañ xam ci moom waaye incarné valeur yoo xam ne mooy valeur islam waaye mooy valeur yi nga xam ne moom na sëñ Touba sampoon doon ko dox doon eh, wommat taalibe yi ñu dem ca moom ci moom lañu seetlu yooyu valeur mu di ko dox boobu ba tey te teggiwu ci tànkam benn yoon te képp ku ko jàpp it ci yooyu nga ko jàppee mu doon nit koo xam ne mu naqari naa wax ci moom loolu ndax euh, noo ko xamee ci ak mbaax ak jub ak bëgg lu baax bu déwénee boo ñëwee fekk ko ca waaye fekk ko ca it muy gën a làbbali kon yàlla na ko yàlla dolli dolli koo may wér waaye dolli koo may jàmm waaw koo may jàmm ci ci ci ci loolu nga xam ne moom la nekk di ko taxawal leneen la muy bis bu màgg bii di bis bu laytul xadri nga xam ne yàlla ci suñu borom yàlla suñu borom ci boppam moo moo nu may bis bi mu doon bis boo xam ne dañ ciy dabaatal lu bari ndax umpale wu leen ne askan bi euh, xeet wu nekk dañ daan dund bu njëkk lu ëpp junni at wala boog junni at ak lu teg ñooñu nag dañ daan am possibilité mën a jaamu yàlla ci seen junni at yooyu ñu ñëw ba ci xeet woo xam ne li ñuy dund xaj ne matut téeméer kon bu ñuy jaamu yàlla nga méngale ñoo xam ne junni at lañ daan dund. day day day mel ne lu xaw a jafe la màndaxe kon ñee day mel ne bu ñu jaamoo yàlla dañuy ëppale ñi bu yomal xiyaame kon yàlla daan ñuy fàggul guddi yoo xam ne bu ñëwee suñu benn guddi rek day daal di mën a ful day daal di mën a taxaw taxawaayu junni yoo xamante ne si xaj na ñoom ñooñu amuñu ko euh, ba tax na loolu moo waral guddi yi ak yeneen guddi yu ñu mel kon nag ñu ngi ci euh, sant bu baax ak di ko taxaw taxawaay yu nga xam ne moom la moom la ko yonent bi digleel comme ni mu wax ne moom nañ ciy def di ci def suñu sunuy istixfaar euh, ni nga xam ne noonu la ko jaaralee ci xadis bu sa solo allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afu fa'fu anna ñu du ko faral di baril ci guddi gi ak ay nawaafil waaw ba tax na daal ñu ci ciy sant yàlla di doolee sant ci bis bi ndax wax dëgg yàlla bis yi bari romb na waaye bis bi nga xam ne ba mu ñëwee moom la yàlla tàgg ci alxuraan nag daa di màggal bis bi wane ne bis bu bari ngëneel la moom Serigne Saliou mii moom la jël moom féetewoo ko ngir du ko màggal kon képp kum ci invité rek Euh, yéene na la ci euh, valeur guddi yooyu waaye yéene la yit ci ngëneel yi waaw ba tax na nag ki la yéene lu baax moom amutuk sak fay amut dara loo xam ne it mën nga koo faye waaw ba tax na ñu nit ñu ngi doon lay sant waaw ñu ngi sant ñu fi nekk ñëpp moom xam naa li ci mën a wax moom kilifa yu bari moom leeral nañ ko ñun dañ ci doon rek doon lay euh, kàddu sant yoo xam ne seq seq nañu koog moom waaw boole gi guddi gi àndal waaw jërë ngeen jëf kon jazakallahu auzu billahi min alsheytaani irajim bismillahi arrahmani irrahim asalaamaaleykum mbokk yi jullit yi mbokk yi ñuy topp ci Rafah TV bi ñu di nuyu yéen ñëpp di siyaare eh, Cheikh Mouhamadul Mountakha tey ñaan sunu boroom yàggal ko te wéral ko àggale léegi yéen bépp di siyaareet suñu kilifa sëriñ maam Mor Anta Sali moom Cheikh Massamba di ko ñaanal suñu boroom yàggal ko te wéral ko mu mel na tey nag ñu ngi daarul karim daarul karim ci péncum sëñ Modou Faty Khary di ñaanal ki nga xam ne mbokk mi njëkk a wuutu mooy sëriñ Cheikh suñu boroom yokk ay leeram yéegi ay maqaamam ci kilifaam yu baax jëm fekk barsaq te yërëm mboolem jullit yi nekk barsaq yëpp te jëggal leen ñun ñu fi de seeli sunu boroom euh, xëy ñu ci def lu baax ak jaamu ko te mu nangu ñu jaamu yi ak yu baax yëpp te jégguñu la ci ci di siyaare euh, euh, sunu kilifa gi nga xam ne moo fi nekk si Modou Fata xarit ci pëncam yi muy sëriñ Alxaaji Mbàkke di ko ñaanal sunu boroom yàggal. taxawaayam guddal aw fanam te wéral aw yaramam ba moom it li mu bëgg a liggéey lépp mu liggéey ko euh, di siyaare mbooleem rakkam yëpp euh, yu góor yi ak yu jigéen ñi di siyaare taalibe yi waaye di ndokkeel nag sunu mbokk mi nga xam ne moom lañu nekk këram tey jii muy sëñ Saalihu moom sëñ sëñ Modou Fati Xari ci guddi gi nga xam ne ci la nekk te muy guddi gu màgg guddi gu bari ay ngëneel muy laylatul xadar di ñaan yàlla yàlla nañ ko màggal eh, te sunu borom nangu ko muy guddi koo xam ne guddi gu bari ay ngëneel li ma ko waxee léegi ndax ni ko sunu borom waxee ci alquranul karim laylatul xadri xayrun min alfi shahrin genn guddi koo xam ne moo gën junni weer junniy weer boo ko doon lim. daanaka day mat suuratu xaafir yi ci ay at mooy arbaxun wa samaanuuna eh, kon genn guddi gu am dara ju jooju eh, sunu borom baaxee ñu nekk ci eh, yàlla taw feexal nañu yàlla nañ ko màggal niñ ko niñ ko war a màggal sunu borom nangul ñu ko. fekk si nag sunuy mbokk yoo xam ne ni ma ko waxee léegi mooy waa Kër sëñ moo Faty Khary ñoom ñi nga xam ne dañoo jotoon ndigal ci di ko jooxe ci ndigal lu jóge woon fa mu waroon a jóge ca Cheikh Mouhamadou Moustapha Cheikh Mouhamadou Fadri eh, ba fii ñu agsi tey ñu di ko baaxoo màggal ñu ñëw nag ànd kook ñoom eh, ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaan sunu boroom euh, yàggal seen taxawaay euh, te mottali seeni liggéey yépp euh, xam naa su fekkoon am na lu ñuy tënk ci guddi gi dañ koy delloo rek ci ni ma ko ni ma ko waxee léegi ci ni ko sunu boroom indee ci alxuraanul karim te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama jàngal ñu ko moom itam ci hadis eh, wax ne eh, weeru koor mooy sangub weer yi eh, waaye loolu li ko ko may mooy bis bi nga xam ne mooy guddi gi ñu nekk mooy lalatul xadar moom it li ko moy dara jaam jooju mooy ci la ñu wàccee alquranul karim ci sang batati bu muhammad sallallahu alayhi wa sallama te alquran di waxi sunu borom tabaaraka wa taala di wenn melo ci ay meloom kon kooku eh, dara jaam kenn xamul nu mu toll eh, bokk na ci nag dañ ko daan màggale sayyidatina Aïcha radiyallahu anha laajo yonante bi ne ko waaw laylatul xadar bu dikkee lu ma ci lu ma ciy def ak wala lu ma ciy wax mu ne ko dellu wax allahuma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni bu la neexee nga def ko jamhu fa'fu nii nga ne fa'fu anna allahumma innaka afuwwun kariim tuhibbul afwa fa'fu anna ak nag lépp lu baax rek euh, Cheikh bu ci ay labiréem am na julli gum ci labiré jaam ñi mu julli koo xam ne moom ñu baax ñëpp daan nañ ko def muy fatiha ñaari rakka lay doon fatiha nga ci jàng benn bu ne jàng euh, juróom ñaari lixlaas boo nappee fa nga toog nga def astaxfirullah al-azim wa atuubu ilayhi juróom ñaar fukki yoon euh, ñaari rakkaay yu gàtt la waaye yu bari ay ngëneel la maanaam ñu bala nga faa jógee daañ la jéggal bakkaar boo mosoon a def te kenn du topp dara jéggal say waajur jéggal képp ku la xam kon loolu moom itam ñu ngi koy laabire sunu bopp di ko laabire jullit yëpp di ñaan sunu boroom ñu yàgg koo fekke te yàgg koo màggal te yàlla dañu ko nangul ah, kàddu yi kon laay tënk rek di nuyu si nga fekk naa leen fi muy sunuy bokk ñoom itam ñu bokk guddi gi ah, sëñ Abdul Xaadir moom sëñ maam Mor Anta Sali Masamba sëñ maam Samba Mbàkke sama rak moom sëñ Mahmoudan sëñ Maam Moor moom sëñ Mahmoudan ak euh, bokk yi ñu fekk yëpp ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di leen ndokkeel di ñaan yàlla yàlla nañu ko yàgg fekk te yàgg kootal bi jaahi nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa baraka seexana ahmad al xadim radiyallahu anhu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf al mursalin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 di ñaan yàlla ci daraja yi weeru tedd wi ñu nekk di weeru koor sax ramadan yàlla defal na ci ñu màng mboolem gënee li nga xam ne ne weer wi làq na ko yëpp yàlla nangul nu sunu koor ak sunu jaamu yëpp te bis bi nga xamee ne moom lañuy ñuy dàkk laylatul xadri ñu nekk fii ci daarul karim ci pencum sëriñ Modou Fati Xari nekk ci kër sëriñ Saalixu moom sëriñ Modou Fati Xari di sunu mbokk di sunu wóllare ñu di ko ànd ak moom ci bis bi nga xamee ne woy juróom sëriñ Modou Fati Xari da ko yàgg màggal lool bàyyi koo fi ak njabootam di di dundal màggal ga mu ko doon màggal boole koog di ko ci ñaanal kon bu ñu ñëwee ànd koog e, Serigne Saliou ñu sànni ci ay kàddu ba ñëpp xam nga ne di bi ak li waral sunu teewaay Laylatul Qadr moom bis boo xam ni ni ko yàlla waxee rek. laylatul xadri xayrum min alfi shahr guddi goo xam ne moo gën junni weer te junni weer euh, at yu bëree bëri la kon dàkk bi ñu koy dàkk yàlla nañ yàlla dajaleeg moom ñu jaamu ko ci te mu nangul nu jaamu ga dañu làq ci ngëneel yi nga xamee ne moom la gënee junni weer moom daal am nañ mbégte bu baax a baax di sant bu baax a baax a baax sëriñ Saliou mi nga xam ni moo lañ fekk si it di nit ku baax koo xam ne lu baax rek ay yitteem lu baax rek ko ñor ñaan yàlla ci darajay waajur ñu tëddee yàlla tele ko ay yéeneem defal ko jullit ñëpp ñu ngi sant eh, tey gërëm. tey delluwaat di ñaan yàlla jéggal nu te nangul nu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh Rafah TV, une chaîne de télévision culturelle et religieuse. Rafah TV ñëppay dañ agréer bi